si autoroute Ila Touba bi autoroute moom fu ñu ko teg rek pour gaawaay la te gaawaay bi ñëpp xam nañ ko donc bu ñu demee ba jàpp ne euh, si circulation bi dafay mel ne dafa am loo xam ne dafay yeex donc xam naa bu oto yi di stationné war a fay foofu la yeexaay bi di nekk donc liggéey bi war nañ ko gën a yokk foofu pour que ñu xool lan mooy gàllankoor bi ñu yëkkati ko bu ko defee loolu gën a gën a gën a gën a jumtu te loolu aussi dinañ si dinañ si jóg dinañ ko wax bu ko defee ñu xool ak comité d'organisation bi ak ñiy gérer Ila Touba vraiment li yan mesure nañ si war a mën a jël ak force sécurité yi pour ko loolu euh, mën a mën a mën a deñ euh, bu ñu jëlee si wàll euh, paj mi également comité d'organisation gannaaw ba mu ba mu amee mbégte également comme li ñuy wax rek si disposition yi ñu jëloon daaw ren li muy yokk rek Euh, dafa gën a ñaaxaat euh, secteur santé ñu gën a xam ne euh, jamono ji ñu nekk jamono épidémie la waaw loolu moom ñëpp xam nañ ko donc matuwaay yi ñu gën ko yokk loolu sax heureusement ba fekkoon na état Sénégal moom jël matuwaay yooyu si fan yi yëpp ñu génn ndax xam nañu ne épidémie bi épidémie internationale mondiale la fu mu nekk nii ku nekk réew bu nekk da nga war a jël say dispositions. am na réunion yu ñu jot a def te médecin chef moom xam na ne euh, fii Touba euh, même bu dul woon euh, màggal gi matuwaay yooyu dañ ko war a jël ndax bés bu ne ñu gis fii ay doomu aadama yu takku di dem di ñëw ndax dëkk bi moom moo toll noonu te loolu mu ngi siy liggéey bu baax mi ngi siy liggéey ak ñun bu baax si wàllu sensibilisation bi te xam naa dinañ yokk. ci sensibilisation bi si jouru événement bi d'ailleurs dañuy wax ñoom si seen stratégie bokk na si dañuy soxla sax événement yu mel nii pour gën a mën a def sensibilisation waaw ndax euh, plateforme lay doon si ñoom te loolu xam naa loolu wax na disposition yi ñu si jël te dinañ ko matal si wàll gestion urgence yi aussi wax nañ ko si hôpital comme ni mu ko waxee rek noonu lay demee Sénégal léegi dafa am sax stratégie de gestion des urgences donc comme loolu état Sénégal daf ko gën a jël sax def ko boole ko carrément ci politique donc loolu aussi bu événement bu mel ni amee dispositif boobu il faut que ñu ñu ñu teg ko te dinañ dinañ ko toog surveiller ko ba nga xam ne euh, lu gaaw yooyu ak ak accueil bi ci wàllu vraiment ñi nga xam dañuy am tolof tolof ci wàllu wér-gu-yaram bu ñu demee hôpital loolu ñu gën ko ñu gën ko yokk. xam nañu ne am na défi défi bu. bu mag boo xam ne euh, si couverture médiatique yi suñu suñu xaritu journaliste yi war nañ ko jël en compte événement culturel la mais modèle culturel à proposer au monde la parce que dëkk bu nekk da ngaa am looy proposer au monde loolu mooy mooy mondialisation donc il faut que ñu nit loo xam ne suñu réew am nañ ko muy modèle culturel bu ñu war a mën a proposer mouridisme mi ngi am na lu ñuy tabax lu baax loolu di ko fësal di ko dugal si xarala yi loolu lu am maanaa la bëgguma sori sax si si wax jooju si événement bu war a am le deux nga xam dañuy def basculement analogique ver euh, vers le numérique mais foofu dinañ possibilité yi dafay dem ba immense dinañ fi dem ba kasu rajab boo xam ne nit dina toog te benn appareil am bu ndaw mu nekk télévision studio télévision moom rek muy def ay reportage di diffuser muy jàll muy dem si àddina bi nga ñu defee ne ay nit a nekk si a fekk benn la voilà réussir la mutation numérique yooyu ay enjeu ay enjeu la donc pour ñu yàq pour ñu yàq modèle culturel bi yomb na ku ko bëgg a yàq yomb na donc ñi nga xam dañu bëgg mu mu taxaw dëgër mais il faut ñu xam enjeu boobu xam nan nañu war a liggéeyee comme li ñan ñi di wax il faut ñu xam nan nañuy nan nañuy dëgër suñu dëgër laay il faut ñu xam ko ba pare xam lan nañ si jël génne ko léegi doo am am am am di si toog da ngay am am am di ko jàllale di ko xamale foofu la foofu la pouvoir nekk léegi pouvoir dootul ngay denc la nga am la nga am da koy génne joxe ko loolu moo lay jox pouvoir te loolu xam naa aussi il faut que loolu bu ñu amee dispositif de télécommunication bu mel ni il faut ñu xam ne enjeu yi foofu la gën a nekke te loolu comité d'organisation ni mu ko soulever vraiment xam nañ ko li li jaar-jaaru euh, Serigne sëriñ Fallou ñëpp xam nañ ko la nekk ci biir nag comme thème bi muy indi yooyu nañu war a mën a gën a jublu di ci gëstu mu jëriñ jëriñ jëriñ tarixa murit jëriñ euh, jëriñ Sénégal suñu dëkk ni ñuy dëkke jëriñ àddina te je crois que loolu loolu aussi war nañ ci gën a mën a mën a mën a liggéey bu bu baax a baax